salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu e, ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam e, di yëkkati ay kàddu e, ci ginnaaw bu dogal jógee agsi ci sunu kaw boo xam ni mbirum sunu borom la te nu bokk ci autorité yi nga xam ni danoo jiite population ndax ginnaaw man maay maire de la commune bu Thiénaba nekk au conseil collectivité territorial e yàlla dogal am feebar boo xam ni yàlla moo dogal mu wàcc ci askan wi e ci réew mi ak bitim réew e mais benn arrêté jóg boo xam ni wala décret bu wax ni suspendar na bépp ndaje boo xam ni ñu ngi koy def ci ci réew mi loolu nag fekk tey xanaa day deuxième boo xam ni damay yëkkati sama kàddu pour àddina sépp dégg ko waaye fekk na ma ca ndax euh, fekkan na ma jàpp gàmmu jaayaan euh, waaye bi mu dogal bi génnee lépp loo xam ne dafa jëman ci gàmmu jaayaan dañ koo suspendre euh, yàllaa ngi dogal it mbir xew moo xam ni ci sunu borom la jóge muy lii nga xam ni moo aman démb dal ci sama kaw sama waajur génn àdduna Eh, ñu war koo uh, denc war koo ñaanal waaye it li nga xam ni moom laa déclaré mooy lii mënta ñàkk te fu waay nekk man nga ñaan waaye yàlla dogal na nit ñi seen xërte eh, ci man eh, ak uh, bokk gi nga xam ni moom lañu yàlla boole te soxna si doon nit koo xam ni dafa bari ay mbokk ndax dund na téeméeri ak ñaar yàlla dogal bokk yi nag ñëw di jaal si waaye li nga xam ni moo xew moom la nit ñi def ñi ci ëpp ñëpp bin dikkee bi nu jaalee danoo daal di delluwaat li fi dajawan ci mbooloo waa dëkk bi rek ñoo fi desan loolu nag respecté li nga xam ni moom la président wax moo waral loolu waaye bu fekkee du woon loolu kon fii kenn du fi xaj démb waaye nag ñu ngi koy sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax di sant président ndax euh, dogal bii nga xam ne euh, moom la yëkkati euh, ci xalaatam waaye ci jëfam bu rafet wax naa barki démb ma ni képp koo xam ne doon nga wax président ci ñi ñakkan bitim réew ñu war leen a jëli yi am na loo ci doon wax tey nungul nga président ni liggéeyam rafet na te li ko yoon may loolu la def ndax mboolem koo xam ni jëlal nga avion jëli sa njaboot tey ay junni génn na àdduna te feebar ba moo ko fa dugal lii nga xam nag moo ak si Sénégal euh, euh, bariwul waaye yàlla na fi yam te bu fekkan ne wan ni nit ñi def président def na ko li président yi def def na ko mën naa am nëga fekk na euh, camp bi passé na fii ndax li ñëw ko su néew ñi rëcc dugg ci réew mi ñoo ko fi indi waaye président jël na ay matukaayam yoo xam ne démb tey soog a ñëw lii nga xam ne nag moo xew ci commune Thiénaba xew ci département Kees xew ci région bi xew ci àdduna si yëpp xew ci biir réew mi eh, dogal bi ñu nu ànd nañ ci seet loolu la ñuy sant njaboot gi bépp ndaje boo xam ñi ngi ko doon def ñi ngi ñaan ñu moytu ko bépp ndaje boo xam nit ñi ngi ko doon def ñi ngi ñaan ñu moytu ko ba pare nag jël seeni matukaay jël seeni matukaay mooy lan cet gi ñu doon set nan ko yokkuwaay bu buñ ko wàññi képp koo xam ne li la nga war a def eh, bëgg nga koo def mais amoo moyen man naa ko yëg lépp lu ma ci war dinaa ko def parce que nag mbir mi nekk na mbir moo xam ni il faut ñu jël suñuy matukaay mais il faut ñu set mais il faut ñu farlu waaye il faut ñu foogu lan mooy foogu lépp lu lay indil gàllankoor ci sa wàllu cet li ngay lekk li ngay naan li ngay sol moytu ko ba yàlla dimbalinu nga mucc ci feebar bi diggante nit ki ak nit ki même bu fekkee diggante bàyyi ak doom la diggante yaay ak doom diggante jëkkër ak jabar su fekkee mën nañu ko sax kenn ku nekk lu néew néew na nga dànd sa morom lu mat un yàlla mën na la cee suturaal ba feebar bi du la dal. Euh, li nu man nag mooy joxe déclaration ànd ci li président joxe déclaration ànd ci li nga xam ne mooy décret bi gën ñu ni bépp ndaje. nanu ko moytu te bu ngeen seetloo démb autorité boo xam ne mënoo ñàkk a ñëw bi nga dikkee da ngaa jaal rek dem mais kenn joxewul loxo dañu dikk rek jaal dem loolu it lañu santaane te loolu it ñun loolu la ñuy def ñun commune Thiénaba ànd ko ak conseil municipal bi parce que ñi ma wër ñëpp ay conseil municipal lañu mais dogal bi fekk na avant ñuy def déclaration bi ñun dogal bi moom ña nga ca biir parce que gàmmu mbaaleen bi aman samedi keroog la décret bi génn waaye fekk na ñun képp koo xam yaa ngi yëngu ci conseil municipal bi da nga toog sa kër même boo dee joxee ay teraanga da nga koy denc ba yeneen jamono waaye en tout cas daal li ma mën a wax mooy li nga xam ne mooy feebar bi yal na ko fi yàlla yamale yal na ci yàlla musal musal ci bépp jullit waaye musal ci képp kuy sénégalais ndax Sénégal ñaar rekk a fi ne way gëm rekk a fi ne ci wàllu diine diiney lislaam l'islam diine te ñoom ñëpp ñaan la ñu am kon ñi kenn ku ci nekk ca fa ngay yëngu na nga ñaan yàlla musal ñu ba nu mucc ci li nga xam ni mooy feebar bii xew ci réew mi eh, man nag eh, li ma mën a wax mooy ñi jaboote laa mën a waxal ñi ma jaboote ñooy ñan mooy 38 villages yi nga xam ne ñoo ëmb commune Thiénaba ak 21 ak 23 amo yi nga xam moo nekk ci commune Thiénaba mooy 61 villages maa ngi leen di ñaan bépp ndaje boo xam ne day gàllankoor lu jëm ci wàllu article bi génn maa ngi ñaan ñëpp moytu ko muy ngénte muy céet muy ak takk lépp loo xam ne mën ngeen koo moytu moytu leen ko man nag euh, li ma mën a wax mooy lu ma waay invité ci jamono yii na la leer ni duma ci ñëw parce que yoon mayuma ko ginnaaw yoon mayuma ko nag am naa droit bu ma kenn invité ci lenn ñaan nag sañ na maa sàkku kilifa yi def ñaan yàlla musal ñu ci feebar bi gudd gàtt daal wax ji lii rek la décret décret bi nga xam ne moo génn ñun ànd nan ci te it ci man deen ko def lu lépp lu mu laaj pour cet gi am lépp lu mu laaj ci ay moyens pour nit ñi bëri na dàndante lépp lu mu laaj ci ay moyens nga xam ne soo ko defee yàlla mën na laa musal loolu ñun insa bi deen jël suñu engagement bopp deen ko def ñëpp di ko gis kon li may ñaan daal mooy Sénégal yal na yàlla dolli leen sutura yal na yàlla musal ci feebar bi euh, sëriñ maam Mor Seck euh, ñi ngi lay ñaan ci sa barkeb maam ak say waajur ngeen dolli ñaan dolli ñaan président Macky Sall yàlla dolli ko musal waaye doo yàlla dolli koo dimbali ba lépp loo xam ne yéene na ko ci réew mi yàlla dimbali ko ba loola am li muy def nii yëpp nit ñi mucc ñoo tax waaye il faut ñu sant kilifay diine yi nekk ci réew mi ndax li nga xam ne moo xew su fekkee ne woon àdduna woon lu day ni siyaaru général ñu ne bàyyi nan ko lu day ni daaka ji ñu ne bàyyi nan ko lu day ni kasu rajab ñu wax ne nan ko moytu kon yeneen yi ci des mët ta wax kon képp ku nekk ci Sénégal déggan ni gàmmu jaayaan le 21 la article bi génn na dogal bi génn na waaye ñun ànd nañ ci avant bi bisub tey nii la daal lépp gàmmu jaayaan amatul benn manifestation buy am ci sama commune boo xam ne des na ko dégg du fi am parce que commune bi nag ñu respecté diine lañu waaye ñu respecté état lanu amul lenn loo xam ne état dina ko aaye wala diine santaane ko te commune ba àndul ca loola ndax ay kilifaa fi nekk ay jullite fi nekk ay goro fi nekk ay bokk fi nekk kon yàlla na yàlla musal ci lii nga xam ne moo xew kon ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed di sant ñi nga xam ne ñoo fi teew di sant presse bi nga xam ne ñoom itam lii ñoo ko mën a siiwal ba àddina sépp yëg ni lii nga xam ne moom mooy dogal bu jógee ci président Macky Sall ñun ànd nañ ci te lépp luñ ci war den ko def kon maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu merci monsieur Sarr je que le maire Talla Diagne euh, euh, après avoir remercié vraiment le khalife général de Thiénaba après avoir remercié le khalife général de Thiénaba suite aux prières qu'il a formulées contre le coronavirus a formulé une demande à la population mieux il les a exhortés à veiller scrupuleusement aux recommandations de l'OMS, mais du président de la République, et qui est sorti dans les médias et qui a demandé à la population euh, de, de, de, respecter ces recommandations-là. Parce que, euh, comme il l'a dit, euh, on a interdit euh, maintenant euh, euh, les manifestations, les regroupements, quelle que soit leur nature. Euh, euh, alors le maire exhorte la population de Thiénaba la commune de Thiénaba à respecter cela scrupuleusement. a été annulé euh, par rapport à la décision ou bien la mesure du président Macky Effectivement, je crois que ça c'est une grande décision. Donc, lorsque le président est sorti, Et il a demandé à la population de respecter les recommandations. Le maire, euh, en premier lieu, a demandé à la population de Diane euh, de, ne, de, de, tout en bas, de ne plus euh, organiser ces chants religieux qui étaient prévus pour le 21 euh, prochain, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, que les populations le sachent, euh, le gamou de Diane n'aura pas lieu pour cette édition, Inch'Allah Rabbi. Donc euh, voilà, euh, cela, c'est pour respecter les recommandations euh, de l'OMS et du ministère de la Santé, mais du président de la République. Euh, même le maire, euh, après l'enterrement, avait demandé aux populations de formuler des prières là où ils sont. Mais vous savez, comme les familles sénégalaises, vous savez comment ça se passe. Les gens ne veulent pas rester, être en reste. Ils veulent toujours tous être au devant du maire pour lui présenter ses condoléances. Euh, certes, les, euh, des autorités sont venues, mais ils sont venus et ils ont présenté leurs condoléances et ils sont repartis. Donc je crois que c'était inévitable. Euh, ils ne le voulaient pas ainsi, mais ça s'est passé. Donc... Euh, Voilà. Également, le maire a dit qu'il ne lésinera pas sur les moyens pour accompagner les populations par rapport aux règles d'hygiène qui ont été adoptées par les le maire euh, a prévu les populations euh, avec les, les peut-être des solutions hydroalcooliques, avec euh, des détergents pour se laver les mains et tout ça, mais aussi pour euh, utiliser les, les jeunes, mais les relais pour aller vers les populations, les sensibiliser et leur dire comment, comment faire pour éviter cette maladie-là. Donc euh, tout ça, le maire a prévu de le faire pour accompagner les populations de Tianama. Également, il s'est excusé de toute invitation, il décliner même qui va venir par rapport aux mesures. Effectivement, il l'a dit, parce que comme... Euh, Euh, il y avait beaucoup de manifestations qui étaient prévues parce que les gens, avant la Corité, voulaient euh, euh, organiser des manifestations. Il était invité un peu partout, dans la, euh, étant le premier magistrat de la ville, c'est normal. Mais aujourd'hui que les gens le sachent, qu'il ne peut pas aller dans ces manifestations, euh, suite aux recommandations du président de la République. Donc il doit les respecter, donc euh, il n'ira pas dans les manifestations, mais mieux, il demande à ces populations-là d'annuler ces manifestations jusqu'à une euh, prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi tudd Serigne Mamor Seck di doom ci xalif général de Thiénaba Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck nekk na tamit chargé de mission ci ministre présidence ci ndigalu présidence boo xam ni moom ma ko jox ci jamono yi passé euh, li nga xam ni moom lañuy ñuy sànni ci kàddu yi rek ndax taalibe bi moom du wëre du wëyee lu dul ndigal te ndigal jug na fan la jóge ci ki nga xam ne moom lañu yàlla booleel muy njiitu réew mi te ndigal loolu rek dafa fekk yàlla dogal sax ñun ci la ñuy wëy ci jëmmi saa su nekk te ab jullit nag amul amul lopp yaakaar waaye ab jullit tamit amul lopp ñaan te ñaan yooyu yàlla dogal na fekk nañ ci démb tey soog a ñëw te nag lu baax du doy kon nag ñun li nga xam ne moo ci suñu wareef di suñu wàll mooy ginnaaw bañ yàlla digalee set ba pare ndax lislaam moo njëkk a digle set moo njëkk a set ko yaakaar naa képp koo xam ne dangaa nekk ab jullit nag ñu wàññikuwaat ni la loo gënoon a set na nga ko dolli yaakaar naa faw danga nga cee sawar euh, kon dañuy ñaan yàlla mi nga xam ni dara tëwu ko li nga xam ne nii moo moom la àddina bépp di waxtaane mu nekk loo xamante ni musiba la moo xam ni yal nañ ci yàlla daqal ñun ñëpp yàlla jële ko ci réew mi fépp foo xam ne nekk na ko yàlla na ko suñu borom jëlee suñu réew mi nga xam ne nag ñi ngi wax ne am na yoo xamante ni am na ko fi ñi ngi ñaan ñi ngi ñi yàlla def mu dal seen kaw yal ko yàlla teggi ñi nga xam ne agsiwul ci ñoom tamit yal ko fi yàlla jëlee di rafetlu tamit kàddu yi nga xam ni maire tamit yëkkati na ko fii woote fii presse bi ñu ñëw fii ci këram fii ci bokk ko ak aadama Diop ak commune Thiénaba yëpp ñu ngi rafetlu kàddu yooyu ndax li tax ñu ngi ko rafetlu mooy njiit li li rek lay jariñ soo gisee loo xamante ni dafa wàcc jëm ci saw askan nga nga toog wax publiquement pour jëm a artu nit ñi li nga xam ne muy indi loolu loolu tamit ak soññee la kon maire loolu ñu ngi la sant di la ci gërëm ndax it bu seen kilifa jotee waxtaan am loo xam ne da ko arrêté muy président de la république yéen ñi nga xam ne ay ndawam ngeen nekk ci commune yi faaw lii tamit ngeen gën koo tasaare loolu tamit wàññiwul dara kon ñi ngi ñaan yàlla daal kàddu yu fi jug ak ñi nga xam dañoo teew te jëluñu kàddu daal ñi ngi ñaan yàlla daal di doole tàllal yàlla suñuy loxo lii yàlla na ko fi yàlla jëlee balaa yàgg yàlla mi nga xam ne nag moom loxoom jot na fépp te du làmmatu dara yàlla ko yàlla saafara nu mu gën a gaawe ci barke yonent bi salaay salaam waaye barke tamit mag ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo fi sooxat lislaam bi ginnaaw loolu nag moom ñaan moom duñ ci jug mukk incha allah bu neexee la di sant tamit njiitu réew mi bu baax a baax a baax parce que nag njiit dafa ndax boo xasee génn kàddu rek ñii dañ ci ànd ñi duñ ci ànd waaye nag yow lay sa waref la yow mooy def ko rek sa kàddu xasee jum moom njumte du am ngi ñaan yàlla nag kàddu ngoogu nag yal ci yàlla dugal loxoom ba kàddu ngoogu lam ci yéene lépp ak kilifay diine yi yàlla suñu borom bi may ko ci ndam ñun ñi nga xam ne ay ndongoy daara la jëkk ci kër doomi soxna yi nag moom li ñu gën a war mooy gën a yëkkatiwaat suñuy kurus daara yi gën di jàng alxuraan ñi jekk ci jàkka yi di yëkkati seen i salaatu ala nabi di ko ñaan yàlla nungul ñu lépp yàlla dooli jàmm dooli sutura yow asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. maa ngi tudd Mori Gueye vice coordinateur du Gamou de Diayane en même temps représentant chef de village de Diayane. alors mel euh, dàkk mi nañ li nga xam ne rek moom mooy gàmm gi mel nañ yéen woon ci préparatif yi ki ni mel te yan kàddu nga yëkkati ginnaaw kàddu coordinateur gàmm gi di maire Talla Diagne. alhamdulilah xanaa sant yàlla rek di. nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo bokk toog fii jiital ci sëriñ Mamour Seck ak monsieur le maire de la commune ak aadama euh, ak conseil yi nga xam ni ñoo bokk toog fii yëpp ñoo ngi leen di nuyu ah bis bi nag comme ni nga ko waxee monsieur Sarr yàllaa ngi dogal jaayaan di organise gàmmu année yi yëpp ci kartanu sunu borom yàlla dogal ren ñu xalaatan jàpp gàmmu gi la 21 mars bi ñëw yàlla dogal lépp loo xam ne lu ci waran ci wàllu taxawaay ak euh, préparation ñu ngi ci woon ci wàllu gépp gu manti doon jigéen ñi mag ñi xale yi kenn ku nekk la nga waran a def yaa ngi ci ba yàlla dogal xalaat ñëw boo xam ne mu ngi jógee ci kilifa ba mu ñëwee monsieur le maire de la commune wax ne ah ndigal jóge na de ci kilifa gàmmu gi nag kon dañ cee war a am xalaat ba mu wootee réunion mbooleem ku nekk jaayaan da nga rafetlu lam wax ni nun ci ndigal rek la ñuy tënku ak kilifteef même bu fekkee ni président de la république joxewul woon boobu dogal ni nañu arrêté événement yëpp même monsieur le maire mi donc bu joxe woon ndigal ni nañu bàyyi nga daañu ko rawatina nag président de la république joxe ndigal ndax jaayaan dëkk la comme ni ko Maam Mor Seck waxe dëkku taalibe la dëkku doomu soxna la ndax ba googu maam Mor Seck jóge mook jaayaan du ñu ñaar benn lañu lu ci dal kenn dal na ko ca des te ñoom ba dogal bi ñëwee dañu ko rafetlu kon jaayaan du man lu may lu kilifa wax rek ñu ànd ci ak moom ndax bis yëmul ci benn te président de la république bi mu li wax ko jàmm rek la bëggal askan wi kon nun fu digal jóge rek dañuy rafetlu loolu ànd ca ànd nañ ci à 100 pour cent lépp lu manti doon ñu préwaran ko ngir yàlla gàmmu jaayan teg nañu ko ci suuf topp ndigalu président de la république kon nu ngi sant monsieur le maire di sant président de la république di ñaan yàlla li ñu yéene ci xeet wi te du lenn lu may bëggal leen jàmm ak wér ndax prévention du lu may fegu ci lu luy lore kon bu président initié loolu tëral ko Sénégal gépp kon nun du nu man lu may rafetlu ko ànd ci loolu moom la ñu def salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, yéen mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci ne ci sa tur ak sa sant di jiital eh, ci nuyoo bi sunu xalif général eh, Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck di ko ñaanal yàlla sunu borom may ko wér ak fan wu gudd lool. di teg ci nuyoo bi kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk sunu ginnaaw te jot fee jël kàddu ñu mën cee jiital monsieur le maire Serigne Mamour Seck ak conseil municipal bi Adama Diop ak le chef de village Euh, de Diayane euh, Baye Mori Gueye euh, di wax rek ni ñi fi jot a jël kàddu wax nañ li nga xamante ne nii presque mooy essentiel bi waaye dañ ni maanaam mag ñi ñoom joxe ay ndigal la ñu man mais ndaw ñi ñooy def action kon yaakaar naa ñun dañu daal di jublu rek ci action yi ak di sensibilisation yi parce que tey ku ne xam na nii fii nga xamante ne nii foofu la réew mi toll tey wala adduna bi toll muy feebar bi nga xamante ne ni moom la ñuy wax coronavirus dafa nekk feebar boo xamante ne nii bu bu bu doy la bu gaaw a wàlle kon euh, te sunum réew wala euh, OMS euh, jël ci ay matukaay am ci ay ndigal yoo xam ne daf ko joxe ndigal yooyu na ñu bëggoon maanaam ñëpp respecté ko bàyyi ko xel bu baax a baax a baax bokk na ci maanaam di raxasu ak ndox ak saabu wala maanaam gel antiseptique yi nga xamante dañ koy raxasoo Euh, bu dee tamit da ngay euh, maanaam euh, kii nga utiliser mouchoir bu nga xamante ne ni mouchoir à la benn yoon nga ko utiliser sànni ko ci ci ci ci poubelle bi bañ koo sànni di ko jeter ci mbedd mi boobu boo dee boo dee sëqat wala ngay tisoo li nga bañ a jublu nit ñi ba pare moytu rassemblement yi loolu c'est important dafa ci am solo bu baax a baax a baax kon yaakaar naa ñun askan bi war nañ koo mën a déggee noonu euh, léegi nag ñun li nga xamante ni mooy rôle jeunesse bi euh, rôle bu am solo la ci parce que war nañ cee mën a indi suñu participation benn ku ne xam na ni école yi euh, dañ leen a may maanaam ñu am fête loolu laal ko mën a tuddee ñu am fête fête googu nag ñun jeunes yi war nañ cee mën a indi suñu apport mooy que ni ñu joxe ay cours de renforcement élèves yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci ñoom ñoo nekk ci euh, écoles yi muy muy muy primaires yi euh, di di di euh, di CM et cetera di lycée ñi nga xamante ni ñoom seen ñoom ñooy étudiants yi jàppale seen i seen i rak jàppale seen i njaboot pour jëloon ay cours de renforcement muy benn li nga xamante ne mooy sensibilisation bi Euh, euh, au niveau de Thiénaba le conseil euh, communal de la jeunesse pare na pour accompagner le maire ci li nga xamante ni mooy initiative muy sensibiliser askan wi ba li nga xamante ne nii mooy feebar bañ law ci àdduna bi bañ a law ci Sénégal rawatina fii commune bi nga xamante ni foofu la ñu nekk kon yaakaar naa loolu prévoir nañ ko prévoir nañ tamit ay gel yoo nga xamante ni dañ koy yóbbu ci ci ci daara yi yóbbu ko ci yóbbu ko ci comment dire ci district yi yóbbu ko ci poste de santé bu ko defee nit ñi mën ci di di di jëfandikoo ba feebar bi du mën a wàlle kon daal encore une fois jeunesse bi dinañ wàcc ci terrain bi sensibiliser nit ñi parce que am na ay numéro vert yoo xamante ni ñu ngi koy joxe euh, fépp ci Sénégal muy 800 00 50 50 numéro vert la boo xam ne képp koo xamante ni gis nga lu la jaaxal sa yaram mën ngaa woote ñu bañ di négliger naan dañoo soj wala dañoo girib rek mais lépp loo gis mu jaaxal la sa yaram bul négliger demal seeti ñi nga xamante ni ñoo yor wér-gu-yaram yi pour mën koo saytu ndax feebar bi du lu ñuy négliger ñu moytu rassemblement yi di moytu nuyoo yu bari yi buñ ko mënee kii ba pare di raxasu ak euh, gel yi ak euh, ndox ak saabu tamit loolu am na ci solo bu baax a baax mesure d'hygiène yi nga xam ne OMS jël na ko nañ ko respecté mais nag fii ci Thiénaba incha allah ndaw yi nañ wàcc terrain bi sensibiliser population bi ba pare jàppale leen nuñ eh, ci ni nga xamante ni noonu la ñuy maytoo feebar kon daal sant nañ ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni ah encore une fois ñu ngi ñaan di eh, eh, di ñaan kilifa yi diine yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy yor kàddu yi ñu ñaan yàlla ba feebar bi du raw ci réew mi li fi jot am sunu borom saafara ko te leneen du bañ a delsi kon daal loolu la ñuy ñaan yàlla ñu nekk benn nit ñun ñëpp ñu booloo xàccandoo dóorandoo parce que fi mu toll nii mbir mi du wàllu politique du leneen mbir mi tey jii euh, askan wi ñoo ko soxlawoo askan wi ñoo soxlawoo jàppoo nekk benn xàccandoo dóorandoo ba jëlee fi li nga xamante ne nii mooy feebar bii dugg ci réew mi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wàcce foofu sunu kàddu.